Malick Thiandoum tey ñi nga jëm nag ci làmb hmm. démb ak bërki démb ay mbër nañ fi daan tudd Mbaye Gueye la Tigre de fas di wàcc di ñëw ci ay Moussa jàmme di ñëw ci ay Boy Bambara ay Papa Diop Jerry Boston di wàcc di wàcc ba tey nu dem ci nouvelle génération boo xam ne tey am na ñoo xam ne sax soo leen leen waxee duñ leen xam wala ñu tëdd tey ci suuf ci bàmmeel soo leen fëggoon ne leen ñaari gune yi duñu xam fu nu jóge te fekk seen produit la kii doomu saw galgal la nekkoon na Fass baayam dafa màggee Fass yaroo fa waaye kii dafay Siteu doon séeréer dëkk ci biir ndox mi ci bolong yi diggante Marlooj Mar Faafako Jirnda jam naajo Caalaan maanaam ñoominka la waaye nag am fit tamit xam li muy def loo wax ci loolu. waa xam nga euh, làmb moom niñ ko waxee rek dafa am histoire parce que dafa am lu nga xam ne tey jii xale yi dañ ko war a gërëme woon démb. ndax euh, dañuy wax ne ñay buy fàq mbabal doom jo moo tax ndax tey jii ku yeewoon euh, euh, góor gi Falaye Balde wala nga yee Abdourahmane Ndiaye Falang wala nga yee ñi nga xam ni démb ak démb ñoo nekkoon làmb te nga tudd leen fi ba jaar ci Papa Kan Caaro yi ba egsi tey nga wax leen làmb fa mu jógee ak fi mu egsi non seulement ci wàllu règlement parce que làmb lu ne amoon na ci mbay ngoone li may wax ni yëg yaa ma ko gën a xam ah dagg nopp cabax ah jël say baaraam def ci kaani euh, euh, lu ne daan am ñu dóor na sa bañ sa bëñ dàmm nga lok ko continuer léegi daan mi ngi noonu loolu yëpp daf daan am ci làmb tey ñu dem assenir ko ba làmb egg ci niveau bu toll nii euh, ñi nga xam ne dañ daan bëre par passion tey jii bu ñu la waxee ni par exemple la maison du partie socialiste wallaay euh, ndem si yàlla si <laughs> Falaye Balde ah moo ko tabax amul woon samedi amul woon dimanche doo ko gëm xëy na xale yu bëri tey di seetaan xamuñu loolu te ñu ngi romb maison du parti mais xamuñu ne làmb moom moo sos fondement wu maison du parti ba mu taxaw rawatina góor gi Falaye Balde wallaay te ñoom amaana amuñu ca sax lañ ca waroon am ñoom maam góor gi Ndiaye ah, ñoom ñoom ñoom Doudou Baka ah ñoom ñëpp rek tey boo booy wax doo fi jógee Euh, tey jii amuñu ci làmb li nga xam ne xale yi am nañ ko fi. boobu Malick la leen neexoon diwa mën ci gox bi rek. waaw diwa mën ci gox bi rek parce que dañ doon bëre pour la gloire. di bëre pour l'honneur di bëre ngir njàmbaar am way wu rafet donc loolu tey moo fi jógee tey làmb dafa nekk un facteur de développement nekk industrie bu nga xam ne dafay indi xaalis montage financier lay doon. Euh, li ci dund kenn xamul nu mu toll donc tey événement yi dem ba egg ci niveau bi mu egg xale yi dem bay fayeeku cent millions ak cent cent nangam million ba cent cinquante million dégg nañ ko fi ci ay wàllu cachet donc euh, tey jii ñoom waruñu mujjee poussé bi mu réer ba tax na dañuy gërëm Pape Abdou parce que tolluwaayu làmb actuellement nii doy na waar de doy na waar lool ndax tey euh, bu ñu nee la euh, Bombardier amagul komba Eumeu Sène amagul combat Tapha Tine amagul komba Balla Gaye amagul combat Sa Thiès amagul komba Lac de amagul combat Boy Niang amagul komba Eumeu Sène amagul combat nga jël xale bi dëkk Thiès modo Anta amagul combat Guy gi amagul komba bu ma koy lim Malick Niang amagul combat donc nga ñëw ba ci ay Garga Mbossé amagul combat donc tey booy lim pratiquement da ngay lim crème lamb ji amuñu komba ñu demoon ba yaakaar juddu Luc Nicolaï euh, démarché combat ba joxe avance muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo ñëpp ne làmb ji décanté wu na euh, ñu jël ko tëj ci kaso bi. bul fàtte tamit no dama dem ba ca biir fekk Pape Abdou Fall moo njëkk a commencé diggante Ama Baldé ak Tapha gis nga. waaw moo ko njëkkoon commencé ba Jules Balde jógoon pour jëlee avance ba ñu ni ko bàyyi ko parce que peut-être am na leneen lu ci xew donc tu vois donc tey loolu yëpp demoon tey ba làmb làmb tey dafa am gàllankoor bu ci nekk moo tax combat bii nga xam ne moom la Pape Abdou tëgg muy diggante Siteu ak Papa Sow tey jii xëy na moom mooy déclic bi moom moo nar a sauver euh, saison bi ñuy ñaan yàlla euh, làmb ji nekk làmb ju nga xam ni réussite lay doon pour que euh, vraiment li ci topp mën a neex parce que wax nga ko léegi Papa Sow mbër gi da ko doon doomi bër jàngil bëre yàgg-yàgg des na la ñam mu nekkoon Fass donte am na ñu ay jafe-jafe jamono ji du lu gënal kenn papaam jaar fa ba tey jii mu nekkoon ci keppaaru Moustapha Gueye nekkoon ci keppaaru Gris Bordeaux ba def ay preuve tey dafa bokk ci mbër yi nga xam ne ci ñii ëpp ay victoire ci làmb la bokk ndax papa boo koy xool am na au moins ñaar fukki victoire ak benn ba jege woon Tafa Gueye mi amoon ñaar fukk ak juróom Donc tu vois qu'il a fait son temps, il a fait euh, euh, euh, un parcours remarquable. Donc tey mu dem ba jiitu Siteu ci làmb garab ci kaw lay fekkante Siteu def ay preuve moom tamit tey Zoss rek mën na leen boole ñoom ñaar ndax ñoom ñaar ñëpp daan nañu ko donc tey jii Siteu war a daje ak Papa Sow Siteu wax nga ko doomu jonwaar la doomu séeréer la wax nga ko léegi jonwaar mar fafaako mar looj mar sul ah jirnda ba ba ci dëkk yooyu yëpp nga xam ne ñoom ñoom nekk dans les îles du Saloum Saalum mu nekk doomu Saalum fa lay ngemboo dugg ci gaal yi wàcc ñëw caaro yi juddoo caaro yi nekk nekk doomu caaro yi caaro yoo xam nga caaro yi. nekk son bras génn àdduna génn àdduna ci accident donc xam nga ni caaro yi moom maanaam maanaam maanaam ñoom àllu paay ak yooyu moom ku amul fit doo fa doo fa sax yeewoo. waaw waaw caaro yi moom ku amul fit doo fa yeewoo. di bëre MMA. di bëre MMA donc loolu yëpp daf euh, l'un dans l'autre moo tax li ko pap Abdou tuddee le choc des guerriers dëgg la parce que papa pitbull la. il est explosif ki nga xam ne également moom mooy Siteu lu nekk ci kanamam yaakaar na ni moom moo la mën euh, te tey am na évolution bu mu am bu ñëwee ba ñu gis ko ba nga xool euh, daggam xool li mu liggéey nga xam ne am na fu mu teg bëtam te ñoom ñaar kenn defet arrangé wula la ci ndaxte fii mu ne Siteu yaakaar na ne moo mën Papa Sow te fii mu ne xamul ne Papa Sow mi ngi ay stratégie yoo xam ne fa mu jaaroon ak Baye Mandione fu ko raw mi ngi gàddaay ak moom ndax da koo nax ne ko yow sunu taxawee dama lay fekk si dama lay duma Baye Mandione di ko xaar ci loolu di ko déglu mu koy nelawal di ko nelawal ba Baye Mandione fàtte ne mi ngi ci combat absenté complètement bi mu koy songu yëgu ko bi mu koy song yogu ko kon xam nga ni euh, papa takkusaan bu nekk am na ko fi nag xam nga ni takkusaanam mag lees deux ah takkusaanam ak santan ñing ah donc ku nekk bëre na ak moom donc mu nekk un grand champion tey jii euh, am na expérience ci wàllu làmb bés du ko dépassé am na lu ne mën na ko indi mën na surprendre ku nekk donc bu Siteu naagoo rek mi ngi ci erreur parce que papa du bu ñuy saax saaxee donc tey tamit am na lu nga xam ne tey ci combat bi daf cee yokku. te loolu source de motivation la bëgg a doon maanaam nga jël komba ci turu Fass dem ba ci biir Fass dàq la génne la loolu tey nga nar a bëre kan la papa àndal buy ñëw ñan lay àndal buy ñëw nan lay ngemboo est-ce que du bàyyi xel fa mu jóge pour wan leen ni man mii ngeen dàq ba léegi am na lu ma mën donc loolu mën na nekk source de motivation supplémentaire ak da koy da koy indiwaale donc loolu yëpp da koy bërewaale kon Siteu war na def attention parce que tey Siteu moom mooy challenger bi mooy xale bi nga xam ne moo am fu mu bëgg a dem te fa mu bëgg dem fekk ji ñoom Balla Gaye ak ñoom seen yoon bi euh, Papa Sow daf cee nekk te lu nekk sa kanam danga ko war a faxas mu nekk combat bu nga xam ne dina metti lool dina metti lool en tout cas combat bu taxaw la Malick boo xam ne mi ngi noonu jërëjëf El Hadj Maodo Malick Thiandoum tàggul nag euh, Sénégal ak mbokki internet yi. waaw Sénégal set déjà may ma koy ñaanal rek mu màgg lool euh, ba fi ko kilifa gi bëgg a yóbbu mu dem fa ndaxte tey ku nekk xam na ni dañu egg ci ère bu nga xam ne mooy l'ère des nouvelles technologies de la communication et de la communication euh, et la communication donc mu nekk lu nga xamante ni nii tey jumtuwaay yu xarala yi ci la nit ñi di jaar pour information yu gaaw te wóor te tey ku ko bëgg a doxal fokk nga am. am ñu nga xam ne dañuy euh, euh, gëstu jëmale ci li neex askan bi te li neex askan bi làmb la tey Mbaye Ngoné feggoo ak Malick Thiandoum waxtaane làmb fegoo ak Pape Abdou Fall waxtaane làmb boo ko tegee ñaata vues ngay am mm. loolu doo ko xam kon nag euh, ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di wax ne rek ñun daal ay ndaw lañu li ñu bëgg mooy apporter suñu pierre ci defar bi ñuy defar Sénégal mm-hmm. te loolu je pense que yàlla nañu yàlla may wér may ñu gudd fan ba ñu eggale koog jàmm làmb la football la sport la jeex na ci kanam tuuti mbër yi commencé dugg si sunu dugg see ki nga xam ne moom mooy Siteu xam ngeen ko duma leen ko jàngal waaye tamit ki nga xam ne moom mooy Papa day koo xam ne bukki guddi la dax ko sa gétt bu mu tax nga nelaw ba yandoor lu mu yàgg-yàgg day dellu si segam am na fu mu jaar ak baay Baye Mandione lépp lu mu def ci làmb suñ ko ko jiiñee ma ne mooma jërëjëf mbokk yi